jigéen yoo xam ne dee démb faatu nañu te moo ni seen formation moo doon doog a jeex te doon moor a googee am na beneen jigéen boo xam ne tamit tali bi ko moo daa bootoon doomam sax te sàndaga gae benn camion boo xam ne dee daa saaraani rek rey na benn nit fa tamit ay bagage yu bëree bëri naa la wax beneen camion waaw daa daw ba ni saax dugg ci benn kalaaf daa ilaaha illallaah am na la wax yéeni kaay déemee jaagi ne dama ne la gën a gàtt lu tolloo juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards yu ñu ci kaw tali bi de xam ne juróom-ñaar ci ay doomu aadama kon ñoo ca faat te camion yi day nañ leen ca vox populi ne wax ko kay ca kaw dama ne la camion ci boppam kon ñoo rey ni ñi ci biir dëkk bi laa la wax juróomi doomu aadama bokk na ca ñaari jigéen yoo xam ne kon ay jàngalekat lañu ay satu njaay ak ngoone gay mi la démb lañu faatu laa la wax ci diggante Matam gay ak Linguère allahu akbar corona baa ngay continuer rey dee ca jamono joojee Le Soleil yéene kaay nee na maara day taali ñaareelu corona gi nga xam ne ne ñi nga xam ne ne kon mbaa du dikkaat ci dikk bi la boo sàgganee matukaay danañu ko gën a taral laa la wax Le Quotidien yéene kaay ne te Macky Sall kay solaat na maskam ba de ah waaw laas ne moom président Macky Sall moomee la muy sàkku tey mooy ay matukaay bees nouvelle mesure waaw ndaxte nag juróom-benn fukk ak juróom-benn ci doomu aadama yi nga xam ne démb danoo corona looloo tiital ñëpp la wax tribune yéene kaay ba day waaw soli nu masque yi lañ santaane de dana am ramasse bi kay dana commencé ajal leen te toog leen seen kër critique yéene kaay mbaadu kon corona gi la fi amoon day waaj a amaat bu ko waxati mu ko akay ah, looloo tax nag ba jël kon ay ay mesures yu bees balaa doomu jàngoro ji lée di tasaaroo termine yéene kaa ne waa andi gëstam day waaw nee nañ lii nag li ko waral du dara lu askan wi ci boppam ñoo mujj bàyyi te docteur yooyee jam nañu baaraamu tuuma tam nguurug Sénégal gi lée nguurug Sénégal gi day réew mi quotidien nee na ne itam maam jaara faam day xamal na leen démb ne leen Assane Diouf dafa feebar feebar bu mujjee mi sax ah, waaw waaw te nag Assane Diouf boo sàgganee danañu dagg benn tànkam jaar sur sa année wàllum justice koogee ah. coowal Serigne Modou Kara mi ak Kara sécurité ah. am na yu bees ci am day problème yaa ngay démarré nag problème yaa ngay démarré ñeent fukki doomu aadama ak yeeg ñett yaa ñu jàpp day dellu ca procureur chef bu Kara sécurité yëpp teg nañ leen loxo te seen avocat mën ta teg loxo ca seenu dossier luy lii critique yéen a centre boobee dañ leen faa jàpp wala dañ leen fay tubbadee en tout nguur gi day yooyu tey ah. a téye waate ñoo war di yor wàllum kaaraangeewu réew mi lii quotidien ne de xam nga centre yi nga xam ne maanaam moom nga gis ñu naan dañ fay jubbante ay nit ak wàllum milice yeeg yooyee waaw mais parce nguur gi ci boppam moo ñëw ba ca buntu kër dari xëy daal di fay sukko ay oomam laa la wax Boubacar Sadio commissaire à la waaw nee mbir mi du mujj fenn laa la wax du mujj fenn leesi ko yéene kaay ne coowal centre kara yooyee waaw Pépé Diaw di doomu Baba Diaw la waaw teg nañ ko ba jàllale ko mar day taali mar day taali parce que fukk ak juróom Aw mi bañ ko laajee waaw daf ne mësu ko yëg la xew ca biir kër ga ca boppam xamu ci dara ba dara boloo jeex laa la wax li nit yi xam kay damu garaaw mooy la xew ca kër yi kay sur côté yéene waaye xoolal ma bi ci kër yi bi lu tolloo juróom ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn ci ay millions allahu akbar teew kër yi bi ñu leen di fay te defuñu dara eh way samba makki day politique la tal box soob ni ne Mame Mbaye Niang ah daal dina yekk lu mel ni xamee Mahmoud Saleh mii day directeur de cabinet technique la su duggee ne ci wàllum politique yi bang daa gaaw daal di koy changé mambay ñaa nee na Sall xamuloo ne Mahmoud Saleh amul diplôme les koy rafet ak yooyee dellu ci ëtu politique bi waaw nee ñu Mahmoud Saleh daa war a jógee kon ca place boobee ne parce que bokkul hiérarchie ah te amul benn lijaasa ah. bu méngoo waa hiérarchie ah le tey mooy yéene kaa ne Macky Sall day taskatu parti la parti yëpp la tas PDS moom daanaka dañ koo wal parti socialiste nga ne lee xar ba ni tasar AFP xar ba ni tasar waa réew mi moom dee ca faa la ngi ni le la Macky Sall mujjee jaxaseeg Idrissa Seck laa la wax waaye laataa loolu ñoom Pape ak ñoom Omar Gueye ah. ba Idrissa Seck njëkkee bàyyi Benno Bokk Yaakaar ñoom dañoo desoon waaw Macky daal taskatu woon ci ay responsable APR sànni leen ci tuus ba pare jël seen noonu démb indi rek mais loolu problème la waaye li Macky Sall di def day këpp na ca kawam ak sa kaw rek ca géej waay ubbil évidence seen i critique ak les si ko waaw nee na bu gaseli na mu yoree ca boppam ca géej waay ak juróomi chargé des élections waaw nee nañu Aliou Sall na muy doxalee ca boppam ca parti ba baaxul nee na boole leen ca dara moom Sada Sall mële ak Vieux Diop Abou Sène Maguette Fall Mika Ba askama Seydina Fall bu ga seli ak Amara Fab Sall ak Bey di baax meeru Gunaas sur saane waaye marché kondo di nga xam ne ko joxoon nañ ko sinuwaay ci juróom benn milliard waaw ARMP day nee na directeur Sénélec lii du ca dal kas na lépp direct news de Sénélec day ak Pape Demba Biteye mi lée amul yaakaar la ko gars yi wooyee léegi de yaakaar gu tas koo xam ne kon moom la gis ci Pape Demba Biteye mi lée doy nga xam ni kon Mamadou Makhtar Cissé loxo day ànd defar Kaolack ak Kaolack nouvelle vision Abdou Mbacké Bara Dolly day député bokk gis-gis ci source waaw nee na 2012 ba 2020 nguuru Macky Sall day lenn dong lañ ci liggéey jàpp dugal ci biir kaso bi songu kilifa diine songu tam magistrat rek lii quotidien day daan nañ ko de fukki million day lañ toom li dox doxoon ci digganteem ak Mamadou Masali lim duumaa ne Macky Sall kon da koo jox oto waaye caay jaay bi sa kenn da koo gisul a kaa gi ne ah ñoom la far daa mel ku far ci ñoom daal la neex def leese ko yéene kaa ne Macky Sall day dana daje tey ak ay alliés day ah bu juróomi waxtu jotee di 17 heures conférence des leaders de parti yu Benno Bokk Yaakaar ndaw ndaje mu xumut waaye gis na Macky Sall nag ndaje boobee ak waa Benno Bokk Yaakaar yi lu mu xumb xumb xumb xumb xumb xumb xumb xumb xumb nañ fexe ba buñ fàtte pétrole bi